jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi tey nag ñu ngi fii Ngor ci plage bi euh, li ko waral nag mooy daanaka ay ay ci ginnaaw gis nañ li nga xam ne moo fi xewoon mu di jàkkaarloo boo xamante ne amoon na ci diggante population Ngor bi ak ñenn ci force de l'ordre yi ci ay waxi terrain euh, bi loolu amee nag am ay yoo xamante ne jot na ci xew lu ci ëpp nag ca plage bi la xewee li may wax people 221 à chaque fois day déplacé wu ñëw ci membre yi fa seen waxtaan ak moom kii nag mooy Zik di membre ci plage bi frère dama lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu dëkk bi yëpp surtout Ngor waaw di nuyu askan bi bu baax di ñaan yàlla li fi amoon moom yàlla na fi gëj te yàlla bu fi amati. d' accord loolu rek la ñuy. d' accord am na solo. Euh, ngay doomu Ngor. Euh, nekk membre ci place bi. ñu résumé tuuti rek ci li nga xam ne jotoon na fee xew. Hmm. ñu bari mu def leen kumpa. Euh, mën nga ñu résumé tuuti rek lan moo waraloon coow li en fait. oh li waraloon coow li affaire terrain la rek. Hmm, yëkkatil micro bi s'il vous plaît. li waraloon coow li affaire terrain la xam nga nit doo ko fekk ba fi mu dëkk bëgg a jël alalam. Hmm. du ko seetaan nit lu mu ñàkk a ñàkk a fayda ñàkk a fayda sax doo ko fekk ba fi mu dëkk bëgg a jël alalam waaw. déggoo ñu si ay kàddu ñoom ñu imposer loo xamante ne ni amul tey ba lii yëpp am si ndogal am si ay bakkan ros si xama nga di ñaan yàlla mu fi amati daal xam nga jaay doole bi si dëkk bi tamit ñu war see wax ñun néew ñu daal pays normal fii daal jaay doole fi am lu waay neex def te loolu du yoon waaw li si am li si yàqu-yàqu yi si am mara day taali xam bakkan ron na si te bakkan bi si tey boo jëloon terrain bi jaay ko sax mënu la mënu la remplacer bakkan boobu noonu. xam nga kon am na loo xamante ne nii jaru ko lépp si waxtaan la rek. mais instant yi toll nii kilifa yi waxtaan nañ ñeneen booyee ñu arrêté instant yi arrêté nañ ñu ngi toog di déglu kilifa ñoom dañ ñooñu kilifa ñu ngi toog di leen déglu luñ ñu wax rek ñun après ñu gérer loolu. Ah, bi affaire bi amee mu mel ni dafa njëkkoon a am premier jour. ñu toog jekki-jekki gars yi mel ni lu pause ci pause boobu noonu da nga ñu demoon waxtaan ak kilifa ñu gàntu leen wala da nga ñu jekkoo jekki woon rek pause mooy ci période Korité bi. non adduna si loo gis dafa am njiit ñun lu luñ réew réew réew réew am nañ ay kilifa. Mhm. ñun demuñu rek histoire dañ dem pour waxtaan fi ñu demee pour waxtaan ñoom ñoo indi coole foofu. commencé door kilifa yi. commencé sànni raako ramasel taxaw ñuy dóor sa kilifa nga taxaw di ko seetaan. Mhm. loolu moo indi coole. Mhm. d' accord ñu gis. ñu di cooli ñu coo après ñu ne nen ñu ne ñi ngay waxtaan kilifa yi nañu ñu may ñu dem waxtaan balaa affaire yi di ëpp mhm. ñu bàyyi leen ñu dem waxtaan. Mhm. mais bi ne waxtaan ñoom fi téye seen tànk foofu leen téye seen tànk mooy maanaam ñoom liñ bëgg la ñuy def. Mhm. dañu bëggoon a jox xaaj ñoom ñu jël xaaj léegi dañ dem ba ne joxatuñu dara ñoom lépp la ñuy jël. rumeur yooyu daw booy déggal loolu génn naa si le terrain. ñu toogaat tamit kilifa yi ñëwaat na toog leen ngeen arrêté ñu déglu ñu dem waxaa président. Mhm. mais président nangu ñoo recevoir nangu ñoo déglu booy tamit def li ñu war a def. Mhm. tey mu demee nii mais adduna si loo gis am na loo xam ne waxtaan moo njëkkee quoi. Mhm. nit moom lépp waxtaan moo jëkke kon da nga gis ñoom laa ñuy ñëw waroon laal terrain bi dañu waroon na ñëw si yéen waxtaan ak yéen ba pare. dañu waroon na ñëw da waroon na ñëw waxtaan. moomoo ñun ñoo moom waa Ngor ñoom ñoo moom seen alal. da la abal bul gas ay conteneur lañ leen wax pour ñu teg fa c'est normal na te saa yooyu dëkk bi jaxasoo na xam nga agression yi bëri na moo tax maire bi nanguwul ñoom ñu jóge fi moo tax mu abal leen mais bul gas mais dañ ñëw rek commencé def liñ bëgg a def méng la xawma ma askan méng waaw ak général Fall mhm. te ñoom ñu moomuñu ñu mhm. lu ñàkk ñàkk fayda ñàkk fayda suñu alal mënoo ñëw di si imposer di si doole. Mhm. bay boo ngeen rey ñu bañ ñee bañ jeex. après mhm. ngeen doog a defar loolu mhm. gis ni sax bi loolu amee maire bi génn na aussi tamit maire Ngor bi naqarlu ko que ni dañu bëgg a ñëw sama dëkk jaay ma doole te moom ci ay wax nee na dafa am projet yoo xam ne bëggoon na ko fii di biir Ngor ñu ñëw ba koo xañ loolu. mais noonu la demee sax maire bi dina ko naqarlu ndaxte moom mooy jiitu réew mi ñoom suñu kàddu dañ ko jël jox ko. kon suñu kàddu lay doxee ñun waa Ngor kon lépp lu si am dinaa moom mooy responsable bi ndaxte moom fi mu mën a àgg fi waxam mën a àgg amaana ñun suñu wax mënu fa àgg. Mhm. kon lépp loo xamante ne nii kon tey ci communication la. Mhm. dañ koy bàyyi ak moom. Mhm. mais bu boobaa dañ naan ñox moom a yem ndaxte moom tamit dañ ko doon jaay doole. ñun ñëpp leen doon jaay doole maanaam dañ ñëw ne dañuy def lii nii par force te par force boobu moo dul yoon tey moo indi lii lépp. mais am na loo xamante ne si waxtaan la njëkk dañ koy waxtaanee ñu toog waxtaanee xool solution bi nan lay demee waaw ñoo xam na gars yi ba ñu leen a jox yow kii kii kii dem ba génn dëkk bi maire bi dem ba jëli ka maire bi dem jëli ka ñëw kon kooku ba mën naa nekk ak yow. Mhm. ba ñu la nekk ak yow. Mhm. mais jaay doole bi moo dul yoon foofu noonu. d'accord mais naka nga gisee jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na ci diggante force de l'ordre ak population Ngor bi. non jàmmaarloo bi métti na yàqu-yàqu am na fi ay gaañu gaañu am na fi lu ne am na fi fii loo xalaat. am na fi ni ko loolu dundee moom amul si àddina man loolu mosuma ko gis sax mosuma gis loolu si àdduna. maintenant gars yi gaañ nañu dóor nañ fi ay bar reyal xam nga rey nañ fi doomi jàmbur taal nañ ay këri jàmbur lakk nañ ay lali jàmbur. moo war a day taal daal loolu daal dañuy ñaan yàlla rek mu bañ fee amaat mais tant que ñu fi ñu teg seen tànk ñu fa seen tànk mooy loolu day amaat mais dañuy ñaan yàlla loolu bañ fee amaat ñu teggi seen tànk bàyyi na suñu alal. fi ñu war a mën a dem def fa gendarmerie wala caserne bëri na nañ dem virage nañ dem ak feneen. d'accord mais ñoom li tax tey ñu bëgg a parking bii rek ñoom sëpp parking bi nii rek loolu doy na waar quoi. Mhm. d'accord loolu nag mënul woon euh, a am muy ay leeral yoo xam ne dinañ ko indi ma ñëw nag fii xam ne moo waral coow li muy plage bi. waaw ah. ñu gisee image yi ci bi ak fi affaire bi amee mu xaw a am benn benn benn benn soriwaay affaire bi ah. naka la def ba ñëw ci plage bi. affaire bi naka la def ba ñëw bi. waaw booy jaaxle woon moo tax affaire bi ñëw si plage bi. ndaxte tey ñoom ñëw nañ si biir dëkk bi la saccagé kër yi di def ñoom lu leen neex mais fi ñuy mujjee mooy géej waaw bi ñëwee géej nag après si la ñoom ñu ñëw jàkkaarloo bi am mu doon léegi géej ak taliba loolu moo indi coole géej mate ñoom instant yooyu dem nañ ba dugg si biir dëkk bi dañ ne ba sës ba ñu ba si miir bi fan moo ñu dese géej moo ñu dese looloo tax ñu wàcc si géej mu mel ne sax tension bi ci géej gi dafa bari woon parce que ñu ngi gis ci image yi ay nit ak ay mag ay jigéen di daw di di di di féey ci géej gi yéen ngeen taxaw di leen sauver mën nga ñu expliquer lu ndaw rek foofu noonu yan naka naka naka ngeen ko doon jànkonteel. waaw mais déggoo affaire dafa dépassé lu bëri li waral loolu noonu yëpp mais da ngay jekki saa yi gis nit ku tëdd yow doo xam lu ko tëral boo ñëwee deret rek ngay gis. Mhm. ñu bëri dañuy jaaxle dañuy tiit si loolu noonu. Mhm. loolu moo war a gars yi di daw di dugg si ndox mi. loolu moo war a gars di daw di dugg si ndox mi naata yow doo tax wax nit ba si yàgg jékki saa gis mu tëdd da nga xool gis deret après yow sa fit sax day dem mais loolu moo ko fi jarul woon. Mm-hmm. ay nit lañ ñun ay nit lañ ñoom ñi ngeex luy rey ñun ñi ngeex luy rey bu dee luy rey luy rey rek ñoom mën nañoo jàkkaarloo ñoom ñu reyante mu jeex. Mm-hmm. mais lépp Sénégal la rek am na loo xamante ne nii tey. dër bu ñu la waa war na fee man a ñàkk. ndaxte mhm. ñun ñëpp benn lañ. parce que foofu sax gis nañ fa solidarité bi nga xamante ni def ngeen ko parce que maa ngi gis kenn ci waa place bi mu ni euh, moom moo doon euh, taal gaalam di génnee ñenn ñi nga xam ne ñoo nekkoon jigéen ji mais force de l'ordre yi mayu leen may ñu leen may ñu leen. mayu ñu leen loolu loolu yëpp mayu ñu leen ko yow sa gaal du wàcc yow ki nga gaañ du génne fii dem hôpital amul def dara gars yi sacrifié wàcce benn gaal gu mag ndaxte tamit. tiit li muy def si nit dax garaaw ko mhm. loo mën a fee mën a fee am na nooy tiite rek yow too dem. Mhm. te da jekki saa yi nii ñii ngay dóor si ndox mi ñi dugg si ndox mi yëpp giseen image yi. ñi dugg si ndox mi yëpp xamoo ndax dóor nañ fi kenn mu def si ndox mi xamoo xamuñu lan moo xew. nett ni yaa ngi dégg tël tël rek gaa yaa ngi dem seen yoon. Mhm. léegi gaa yi ne commencé sëfe gaa yi si ndox mi. yi commencé sëfe yi ndox mi après par la suite. ñi gaañu si la leen ma mujjee jël yëpp leen si gaal gi yóbbu leen yoof pour mën leen a dem faju ji mais dafa métti même nit ki yow boo ko rayee boo doon ray sax bàyyi ko mu dem faju ji bu dee am na si gaañu bàyyi ko mu dem faju ji mhm. mais ñoom may ñu ñu loolu yëpp mhm. amul génn amul dem fenn mhm. d'accord ci loolu nag ñu fare ci weewu béykat ni am na sax moor boo xamante ni ci place bi la amee mu di xale bu jigéen boobu yow mi nga xam ne yaa nekk ci place mën ay leeral waaw mais ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo ray xale bi ñoom ñoo dóor xale bi bal mu dee ñoom ñoo ko rey. loolu ci place bi la. loolu ci place bi la xewee gune bi tiit na dem na ba si ndox mi xam nga ñu menacé ka xam nga tiit rek. ndax garaaw mhm. ñu mën menacé ka gune bi taxaw si kaw bata gi. la ngaa dugg taxaw ci kaw bata gi la ngaa ma ci bata gi. Oh. mais civil bi moo xuus dem ba si bata gi xëcc bata gi xëcc gune bi dóor ka bal tip génn ka laxas ka continuer seen activité yi ñu doon def. Oh. am na benn ndaw soo xamante ne bal lañ ko dóor si loxo fi mu langaam moon mu bàyyi civil bi dem xëcc ka mooy am na ku loon dóor si tefes gi noonu. waaw bu jigéen ki looloo ko dal ñu jël ko yóbbu ko ñun xamuñu woon sax sax dañu yaakaar ne dax dee si ndox mi biñ xëyee mool yi seen nañ fi yëpp gisuñu ay waa këram dem nañ hôpital au hôpital gisuñu fa la mujjee dem est-ce que yóbbuñu ko gendarmerie foire mais nit ki ba ko gaañee sax nga bàyyi ko mu def faju ji waroo ka téewee noonu lii ñaaw moom ndax ñaaw ba pare. même ñun jeunes yi ñoom bu leen bàyyi woon pour fii ñu def fi sax ñun bu ñu wataa ñoo maire bee dëkk bi sax ñun duñ ko nangu xam nga la ma la duñ ko nangu ñaaw na ba pare mënatu la rafet jamonoy Ablaye Wade ba tey mais nit boo ko toppee ba mu sës nga xam ne ne sës na léegi ñun liñ moom nañ ko bàyyi ak ñun ñoom saccagé nañ suñuy suñuy suñuy liñ suñuy maam liñ fi bàyyi yëpp ñoom jël nañ ko mais as tuut biñ desee nii billaay dañu ko fi bàyyi d' accord léegi euh, euh, li nga xamante ni jot nañ koo yàq ci plage bi ak li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne jot ngeen ko fay dund aussi tamit. non plage bi mënuñu fee yàq dara plage bi moom mënuñu fee yàq dara liñ yàq si biir dëkk bi la ñuy wax que bi liñ yàq si biir dëkk bi loolu la lañ war a wax que plage bi mais plage bi mënuñu fee yàq dara. xam nga nit ñaa ngi nice nit ñaa ngi cool xam nga ñiy bëgg a ñëw si plage bi ñu ngi ñëw si plage bi féexlu kon nañoo yàq dara si plage bi. mais liñ yàq yëpp si biir kër yi leen yàq. d' accord bi loolu amee après est ce que fexe def benn ndaje pour waxtaan parce que dafa mel ni président recevoir na waa Ngor. waaw président recevoir na waa Ngor maire bi jël na jël ay ressources ay ay responsabilités boppam te responsabilité boppam yi mu jël. Mhm. bu demaloon tey du ko jël. ndaxte waxtaan waxtaanu sax askan wi moom daxa dem xaw ma moom vite dax bëggoon coole fay vite fee xaw ma moo tax mu dem nangu li mu nangu mais booy. ñooy dëkk bi population bi ñun nanguwuñu loolu nanguwuñu xaaj moitié moitié ñun ñu loolu de. ñun dañ ne nañ ñu jox suñu alal ñun ban demee bay jël moitié moitié da leen di bàyyi lépp mais ñun nanguwuñu loolu. maire bi jum na dafa juum ba baax déjà rek moom sax waru woon a dem man ni ma ko gisee man waru woon a dem ndaxte sëb dëkk tàng na ay mor am na fa ay blessé am na fa. yow ñu woola rek ñoom ñoo la soxlaa ñoom ñooy déplacé wu ñëw. Mhm. lépp la mën a xew même boo mënulee bu dee da nga koy tëbal ba beneen yoon sax nga tëbal ko ba beneen yoon. mais waxtaan waxtaan ceeg askan wi bala ngaa dem. mënoo ñëw jug nii rek dem da ngay ñëw oo sab dëkk si boppam nga toog nga ne leen kat nii ah nii ah nii la mhm. président la. Mhm. nga dem wuy ji boo demee wuy ji bu la président waxee nga ñëwaat sa population na la ne leen kat président lii la wax ndax d' accord nañ si bu si d' ñu d' si bu si d' ñu xam ne d' si. waaye dem rek ñu ne la nii rek nga ne waaw mhm. te loolu du yoon Macky Sall ak nit la rek nu ñun da kay wax sa bëgg-bëgg li nga bëgg lañ koy wax ñun mosuñoo taxaw di ko tàllal suñu loxo mosuñoo taxaw ne président ñun jox ñu lii jox ñu laa mais bu demee ba suñu alal ñun ñu moom ko du nekk da nga koy defee nii wala da koy defee naa da nga ñuy suñu alal lin moom mhm. duñ taxaw ne laan nañ ko xaaj de déedéet loolu ak ñàkk fayda lay ñuroo sax mhm. ñun lin moom loolu lañ soxlaa te booy dëkk bi nanguwuñu ci moitié moitié suñu alal leen soxlaa ñun luñ xam ñu def si. kon propos yi leen président jox d' accord. non non d' ñu loolu. mais bu ko signé woon international sax ñun d' accord ñu loolu. nañ suñu alal ñun ñoo ko moom. ñun ñoo moom suñu alal nañu ko jox mais ñun li mu ñu proposé d' accord ñu loolu. d' accord am na solo. waaw maa mbégte loog yow xam naa fi may jeexalee parce que ñu bari ñu ngi doon xalaat pour ñëw ci plage bi. parce que tàngaay bi ku ne xam na place yu ngor ni muy doxee mais ñu ngi doon sóoraale wala ñu ngi doon ragal li fi xew hmm. lan ngay wax ñooñu noonu nga xam ne ñooy ñëw ci place bi souvent di fi féexloo ah, bi mu ngi nii rek comme dab jàmm salaam ba ñi bëgg ñëw ñi ngi ñëw xam nga mais am na ñoo xam te ne ba tey seen fit du dal hmm. ndaxte li fi jot am dëgg la am na ñoo xam te ne ba tey seen fit du dal li fi jot am mais c'est normal boo demee ba ab dëkk di yëngu tamit war ngaa xoolaa sab toogaay quoi ngor nu mu mel ngor nu nga ko melalee nu nga ko bonalee wala fu nga ko dëkkal rek état moo ñu fa dëkkal plage bi moom ñi bëgg ñi di ñëw ñi ngi ñëw si jàmm salaam xam nga dara amu fi dara xewul. Mhm. lépp lu am du ñuy du ñu ñëw de ñu nax état la. Mhm. état moom nañu bàyyi ñun ñu dund si dund ngor ba ko mënee supprimer si Sénégal si nañ ko supprimer si Dakar na te ñun njaatuñu si dara ñu solaa ñu dara ñun lépp lu am waa ngor ñu ngi koy doy ñu ngi koy doyloo solaa ñu alalu kenn doo dégg ngor si dara problème doo si dégg ngor doo dégg si ay ay ngor télé doo dégg ñu ne ngor. mais ñun den kaasaw fi ñu kaasaw di demax suñu doole nit ki nag boo koy néewal doole am na faa xamante ne fa laa yem wasalaam. d'accord euh, mu ngi noonu moom laa dalaloon fi tey mu nekk responsable ci plage bi li may wax rek People 221 moom bu dara xewee rek day déplacé wu ba ci ñi nga xamante ne ñooy ay membre waxtaan ak ñoom parce que duñ jël ci fore na wala dégg naa wala yaakaar naa donc am naa mbégte jàkkaarloog yow tey lan ngay tàggatoo. waaw di ñaan yàlla si réew mi jàmm rek. Mhm. xam nga yàlla seddal si ndox mi sedd guy. amiin di ñaan yàlla xam nga réew mi am jàmm gars yi mën a doxal seen activité ñi mën a dem liggéey liggéey xam nga waaw. yàlla na yàlla def jàmm daal. loolu laay ñaan. allahumma amiin jërë ngeen jëf kon mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñu suivre di leen wax ñi doon ñëw ci place bi nañ ñëw fii jàmm salaam moo fi am donc mu ngi noonu soyez les bienvenus di leen jox yeneen dig suñu yeneen émission fii ci people